waaw 18 safar moom day bis boo xam ni bisu cant la euh, seexul xadim nag dafa am cantam dafa am ak wuute gu mag ak yeneen ñi cante nit ñi bis bi ngay xamee ni am nañ victoire la ñu cante waaye moom bis bi nga xamee ne sama borom xamal na ko ne ci ngay dajeek say noonu jamono bis boobu la jël muy bisu cant mu tolloo woon euh, ci Mbàkke yi keroog ba mu war a dajeeg noonu ya ca Jolof euh, te tund jeewal bis boobu la jàppoon ni mooy bisu cantam waaye nag euh, dafa dem ba egg si njaareem mu xamal ni ko suñu borom xamal na ni ko cant goppam rek mataliwu ko ndax boobu moom rek ko doon cant moom rek ko doon màggal ca la woote nag ni kuy kogam koo xam ne sa mbég mbégatelam la na nga ko santale boromam ci bis bi kon nag loolu mooy 18 safar muy màggal gi mataamu ko dafa bari njariñ dafa dafa bari njariñ dafa bari njariñ li wax toujours rek maa ngi koy wax ni euh, nit moom bu mënee màggal dana am bayre dana am xorom te dana gudd fan tamit teg ci te dana bëri wërsëg ndax sëñ Tuubaa ba muy dem moo demal boppam moo defal lépp boppam bi mu egsee ba war a cant la ni nag sama cant bopp mat ba kuy sama ko la ma santale kon nag faaw cant gi ba pare mu defal ñu ci yeneen nag yoo xam ne des na ci dikkaat incha allah déedéet màggal dëgg luñ dul jekku luñ dul jekku mooy sëñ Fall waxoon bor boo xam ne du jeex loo am da nga cay dawal màggal mënoo cee def ba matal kon la lay di dimbali mooy saabu bu 19 safar jotee 19 safar nga daal di jël sa kayit sa bic xam ñi nga fàtte woon ci màggal 2020 seet noo entamé màggal 2021 noonu la ñuy màggale wàccaay bi nag moom actuellement ndax màggal dafay cant bernde ak jaamu yàlla cant nag mënuñu ko wax ndege ndare di daluwaay yi jekkagul danga defar ay baaj ngir ndox bañ a manqué da nga peinturaat defaraat carrelage xool wana yi xool robinet yi fexe ba ndox du manqué lépp lu waay di soxloo ci jumtukaay ci xeeti dal actuellement foofu la dëkk bépp toll moo tax fi ne nii pour gis fi maçonnerie wala nga gis fi benn plombier wala carreleur wala peintre dana jafe lool parce que murid yëpp actuellement kenn ku ne bëgg na sa dal dàq ci dal yi waaw waaw xam nga bu ñam yi baree daf fi muy tëdd amul condition lekk ga dana ko seexlu waaye dañoo war a fexe ba condition yi réunir ba niñ ko bëggee mu mën a nekk très bien bernde day méngoog barab bi barab la bu ñu terrasse wala bu ñu karole déedéet même bu doon sa sàkket fexeel ba suuf sa mu nekk ñu lay ko ba mu nooy sàkket sa doon sàkket yu baax lal ba ñu lal ko mu am ay conditions de vie yoo xam ne ku fi ñëw dina xam ne fii set na loolu rek la ndax cant dafay ànd ak cet te lislaam mooy set loolu moom defet la ci màggal bépp murit bu am gan ren amaatoo ko déwén defet la ndax gan yi moom fu gën a nooy gën a neex rek la ñuy wër waaye gën a nooy gën a neex kon mooy da am pas seet conditions yi mu am yëpp nga am ko ah man da sama kër moom am naa ay conditions yi exceptionnelles yoo xam ni euh, bu ma sañoon ñëpp am ko ba kenn ku ne la nga amoon nga am ko ndax damay wax toujours gan gi warta ñëw indi saagam di ko ñege ñaayo waaye gan gi tamit warta ñëw bëgg connexion du connecté wu waaye warta ñëw di wëri chargeur kon connexion fii dafa war a permanent chargeur yi wa xam nañu xeeti chargeur yi buri yi gën a soxla ñu wut ko waaye tamit warta wëri crédit ndax bu bëggee woote condition yi koo ko defal teg ko barab bu sedd incha allah dana fa mën a màggal lu ko fekk mu sant ko waaye bu dul loolu nag bu déwénee bu gisaatee keneen maanaam suñ dal ba dafa am lii mun ko yóbbu ma kon ku bëgg say gan ne ci sa barab saa su ne da ngay seet condition yi nga ëpp solo ci bis bi nga def ko ah loolu moom Sëñ Abdou ko njëkk a wax Sëñ Abdou Lahad nee na gan boo ko fonkee da nga koy gàttandu dalal ko gunge ko biir gàttandu gi nag mooy préparatif yi mais biir dalal gi nag moom nee na dañ wàcc lal yi génn néegi yi ngir dalal gan loolu moom faaw gan yi def ko maanaam moo waa dëkk bi wàcc lal yi génn néeg bi jox gan yi ñu ñu ñu ndax ñun lu am solo lu ëpp solo ci àdduna la am kañ lañ koy am benn yoon par an muy bis boo xam ni gan yi Sëñ Tuubaa benn yoon dong lañ koy am ndax gan yi yëpp Sëñ Tuubaa rek tax ñu ñëw nga am tawfeex ñu affecté la fi ñaari gan loolu moom ni koy xamee rek mooy masalan ñu ni am na kilifa guy ñëw Sëñ Muntaxaa nee na nga bernde ko moo gan yenn sa kër ñoo bokk benn benn benn benn benn at kon na kooku warees na koo mën a fonk gani sëñ Tuubaa lañ lu leen fi di sëñ Tuubaa wooteem bi te gani sëñ jafe na kon bu la ko sëñ Tuubaa taw fee xele war nga koo jàpp ak say junni loxo téye ko ba du lu mu xalaata laaj nga def ko damay wax sax bu jaree léebal na ko léebal waaye bu jaree wayal sax nga wayal ko ndax moom mu kontaan ngir bis bi ndax sëñ Tuubaa dafa ne waaw xam nga cant sama borom da daan wax ni cant moom ñu néew a koy def sama askan ñu néew sëñ dikkaat am bis boo xam ne da ko woote muy bis sant national kon la nga xamoon ni mooy lay dindeeku ca lu néew la moom la sëñ Tuubaa war a additionné ba mu supérieur ba nga xam ni li ñuy cant suñu borom ci at mi dina bari loolu bisu màggal rek lañ ko mën a am moo tax kenn ku ne day dugg ci biir cant gi kenn ku ne dafa war a dugg ci biir cant gi seet jàng alxuraan di ko tàmbali di ko gunge jàng xasaayit boole ko gi fexe nag ba kenn ku ne ci xeeti bernde yi naanu yi ak bernde lekk yi lépp nekk yu gën a kawe ci xeeti qualité ak sel ak set ak am condition de vie boo xam ne ku fa ñëw dina xam ne kii kat euh, vraiment dinaa ko fàttaliku. li sëñ Saali daan wax rek ci guddi gàmmu naan euh, yées na nga yemale ko guddi goo jiitu ak ga ca ginnaaw waaye nag bisu màggal moom mel ni yeneen bisi yi moom baaxul yàlla nañ ci sëñ Tuubaa musal na nga sañse lu rafet a rafet togg xeeti ñam yu bari te neex yu super yu kawe di nga gis ñu bari di togg mis añ donte que nit ñi yàpp bi waaye añ dañ koo xamoon ci ceeb dañ fay duggee nag xam ne tey journée excellence lañ am ndax sëñ Saliou dafa wax ni àjjana li muy neex neex ci saa rek la ñuy dund waaye fu fukki fan ak juróom ñëwee ci safar la muy neex neex dana gën a fawxa comme que ginnaaw àjjana soppeeku nag ñun àdduna faaw ñu soppeeku ku koy du jinne du malaaka ñun murid Bamba yi nga xam ne kenn mënatu la sant sëñ Tuubaa loolu sëñ Abdoulaye doon wax koo xam ne loo ko bëgg a sante boo xoolee muy mbiram nu ñuy def mooy daw ci bëggam lu mu bëgg mooy bis bi nañ jàpp ci bis bi am ci fulla am ci fayda def ci luñ mën ak luñ mënu ni ko sëñ Muntaxa waxee ci discours bi kenn ku ne na xam ni mooy rawante bi damay faral di wax naan nit dina am soxla dem ba fu bari di fa ñaanlu ngir loola mën a saafaraw billaahi wallaahi amal sa xal mbaa sa ginaar mbaa sa gileem rey ko ci bis bi fas ci li nga bëgg nga xool ba déwén faw mu sot sëñ Tuubaa rek a man lépp kon damay gën a soñaat sama mbokk yi ñu xam ni bis bii moom moom la sëñ Tuubaa am moom àdduna moom am àllaaxira ku ci raw nga ci ba faw ñu ko sëñ Saali waxoon fu fi ñaar dendee kii di ko fonk ko bañ a koy fonk du ñàkk gis du mu tiime ba faw ñun ñëpp bëgg a raw nañ fonk bis bi ngir ñu raw masque yi ci bernde yi lay bokk ndax ñun masque yi moom ndigal li rek ndax murit ndigal damay ndax leeral nit ñi kër gune nay fexe gan gu ne bu ne asalaamaaleykum muy fexe raxasu am say biteelu gel yu am condition waaye nay am ay masque lu ko waral mooy sëñ bee ko bëgg te lu sëñ bi bëgg bëgg ko ñu bëgg ko ndax tubaab dafa ne l'ami de mon ami c'est mon ami suñu sëñ bi lan la bëgg mooy ñuy takk masque nañ ko takk ngir sëñ bi boole ko ci màggal gi ndax bu ñu koo ku màggal daal te takkoo masque daa mel ni màggaloo ci ndigal te ñun lépp ndigal la nañ wuti masque takk ko boole ko gel ak raxasu